man Coumba ñoo bokk suñu xaaj suñu jaari cimboo bi jaari ku jur ku mi kumba Sall muy Coumba Cimbo ak ku sama papa ñoo bokk benn ndey Macky Sall yaayam nekk sama mag di Coumba Cimbo ak Samba Cimbo ak xaaju Cimbo ñoo bokk ndey ak baay ñu bokk ak man ñu bokk sama papa ñu nekk ay doomu ndey sama papa moo ngi kunkaan kër gu mag ma nga Kolda man may rakk Omar Diallo moom Macky mii bu mu fi njëkkee ñëw ñee leen waa gee ngeen doo xam ngeen Kumba Diallo mooy kan sama yaay la jàppale leen ma ma jàppale sama ngeen jàppale leen ma jàppale sama yaay kon fii la ko yàlla teg boobaak léegi gisuma sama bopp faaluwuñ ma lijjantiwuñ ma lépp nag lu ma am dinaa ko def si moom ndax yaay bu muy dund daaw ma jooy dara sonduma ba tax mu jël sama doom ne dama koy yar fii sama kër gi fii ndax ëllëg ak sib lu la sotti nga am si daal ndax aw ma kenn ku du yow mu yar ko ba yàlla def mu gaañu ba léegi xale bi mu ngi foog sa kër ga moom sama doom ji ba léegi mu sa biir kër ga am na fa ñaar fukki ña Macky Sall kër nijaam léegi la nekk Samba ci mbola nekk am na fa ñaar fukki at mu ngi sa kër ga waaye man lu ñuy def duñ ma wax suñuy sedd duñ ma sedd maa ngi fi sonn si bay bëgg a dee defaluñ ma dara waaye sama coono sama lu ma neex ak lu ma naqari dama koy muñ xam ne Macky yëgu ko Macky bu ko yëgoon sama naqar jeex na Macky nag fii na si dëkk bi fii keroog bu mu waxee ne jël na may mën a jàllo dama kontaan ndax may mën a jàll moo nekk nit koo xamante ne dëkk social lay dox dëkk bi fii nii amul lu fi du def si àdduna amul lu fi du wax si àdduna dooleem yëpp si dëkk bi la ko defee su koñ kàmmaa gii Pa Malick Ndour moom dox ñëw ba si man ne man xamee wu ma woon ne nii nga demee nii ba léegi yoon nii nga mel ma ne ko nii laa mel du ma wax ndax su ma waxee nit ñi bu ma xamalee bu ñu xamale Macky bu ñu xas Macky ma la xam dëkk bi nag man la ñuy lalee te dañuy naan Macky mbokk Macky Sall en tant que mbokk Macky Sall tant que Macky Sall si dara bu ñu campagne man la ñuy campagner bu ñu wàccee man la ñuy wàccee mu naqari ma lool nag Macky mënumaa yóbbu sama bopp mënumaa yóbbu sama bopp mënumaa andi sama bopp ndax xamu fu may jaar ñoom ñëpp su ma la xàllalee yoon bi bu ñu am rek ñu romb ma dem seen yoon ma gëm yàlla rek toog na jàpp si yàlla xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg sàll la gis déedéet benn bis ne woon na naa la booleeg Pape Samba Pape Samba bu boole gaañoo ak Fatmata gaañu ma nekk Fatick nijaayam ne ko kumba mii jàppale ko kumba ñun ñu am amul kenn ñun la am mu jóge na Kolda ñibbisi na fi jàppale ko mu ne ko Pa Malick jëlee ma kumba Diallo bii boobu ba léegi Pa Malick gisuma lu ma def gisuma lu ma def mooy porte problème ku muy àndal ki ba léegi gisuma lu ma defal gisuma lu jël sama numéro téléphone bind ma daal di dem nee ko li ma wax nag na ko porte problème jox ma gisuma si dara maa ngi nii toog may mën a jàll mi moo mujjee fipp ne ko dinaa dem si Macky yow yaay tax may ràllee dem jàppale Macky ndax yow ndax sonn nga fi te Macky xamul sa coono. bu ma defee keroog réunion bi fii maa ngi moom jur dox dox boobu ba léegi si àll bi du ko dox di ko aw ma ne mais yàlla may na ma ñun ñi yoruma mais yàlla bol na maa gee ngenew gi fii fii laa yaroo fii laa màggee sama bàjjen moo ma yar kon ku bëgg Macky dama lay bëgg ku bañ du ma xam leen ma lay def aw ma nag mais li nga xam ne moom la sama wërsëg dinaa ko dox si moom bu mu jeex si campagne yi ku ma si xas baax na ku ma si xas baax na dëgg la gisuma sama bopp yàllaa ko dogalu bis bu ko yàlla dogalee dinaa gis sama bopp waaye bu ko yàlla dogalu nag bisitu xasuma ko si xànc ma ko si ndax su ma ko xasee sama bopp laa xas su ma ko sànni su sama bopp laa man makki rek laa am ñoom rek laa am ñoom laay tuutaroo tamit ndax yaayam amul lu moo ma tette ba ma egg ma toll ma toll kon mu ñu yeggee ba fii gisuma ko ma xam ne nguur rek moom ma ko téye nga xam ne tamit ne dañ koy man mii te gisuma ko loolu la.